asalaamaaleykum mbokk internet Sénégal set ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fas yéene ñëwaat rek ci li nga xamante ni moom mooy xibaar yi fii rotandi ginnaaw bi nga xamante ni rek ki nga xam ne moom mooy njiital ex Pastef di Ousmane Sonko tàmbali naa joxe li nga xamante ni nag moom mooy ay gis-gis ngir rek ñu mën a amal li nga xamante ni moom mooy élection yi mën a sauver li nga xamante ni moom mooy seen projet boobu nga xamante ni moom waxoon na bu ñu ca tolloo dina daal di tànn rek ki nga xamante ni moom lay. yebal pour que patriote yëpp mun koo topp ngir ñu mun koo voteel mu mën a gagné élection yi dès le premier tour ba tax na rek niki noonu gis nañu une vague de personnes yoo xamante ni ñu ngi commencé di rejoindre ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko waaye bu ñu fàtte ni ñoom dañu daal di jàllale ñetti candidat moo xam ki nga xamante ni moom mooy Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dieye ak Bassirou Diomaye Faye niki démb nag ci vidéo yi nga xamante ni Ousmane Sonko jotoon na ko enregistré laata ñu koy yóbbu fa mbaxane doone benn daal nay joxe ndigal ne rek képp koo xamante ni yow projet Pastef yitteel na la moom nag joxoñ na baaraam Bassirou Diomaye Faye ngir bu le 25 février jotee ñoom ñëpp ñu àndandoo daal di koy voteel massivement bu ko defee mu mën a gagné li nga xam ne moom mooy élection yi ba tax nag ki nga xamante ni nag moom mooy Cheikh Tidiane Dièye tey daal di nay def ab sortie rek xam le ni yeesal yi fidélité am ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko waaye di xam le rek ni projet bi bu laajee moom tamit moom mi nga xam coalition bu laajee mu dem rejoindre Diomaye da koy def ba tax na moom tamit daal dinay joxe rek ab bataaxal ngir xamle rek ni moom aussi euh, bokk na ci ñi nga xamante ni dañu fas yéene jàppale Bassirou Diomaye fay ci élection yi nga xamante ni moom foofu la ñu jëm ndaxte nag jàpp na ne Ousmane Sonko bu fekkente ni li ñuy woote dëgg la ci moom euh, ku mu joxoñ rek kooku la ñuy joxoñ ba tax na moom génn na sax slogan bi nga xamante ni ñoom moom la waa Pastef daan wax di naan Diomaye mooy Sonko Sonko mooy joomaay waaye tey dinañu wax ne Cheikh mooy joomaay joomaay mooy Cheikh mu mel ne nag ñu ngi gën a wane rek ni projet bi moo leen yitteel intérêt général la ñuy daal di jiital ngir mën a gagné rek li nga xamante ni moom mooy élection boobu leen ñu jëm ba tax na Cheikh Tidiane Dièye yamu ca daal dinay xam ne rek ni dañoo war a libéré ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye Faye le plus rapidement possible ndaxte nag suñu gis élection yoo xamante ni candidat ba ma nga fa mbaxane doone benn su boobaa nag li nga xamante ni moom la candidat yëpp di am moom du ko am loolu dafay continuer eh, di nekk injustice ba tax na rek mi ngi xam leen ni pouvoir bi war ngeen a jël seen responsabilité daal di bàyyi ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye fay mu daal di génn daal di mën a def li nga xam ne moom mooy campagne moom it di nag Cheikh Tidiane Dieye fa mu ko jeexalee bokk na ci eh, nee na fas yéene nañu futteeku wàcc ci terrain bi rek daal di battre campagne eh, ndaxte jàpp nañ ne changement bi Sénégalais yi bëgg incha allah projet PASTEF moo koy wëyal.